Baye Moussa Dieng ñoom ñoo fi ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom bokk te ñoo bokk ndey ak baay te amoon na euh, beneen sëriñ boo xam ne moom lañoo wax euh, ki nekkoon mbayeen sëriñ Madi Mbay moom moo jàngal kilifa yu bëri fii biir Kawur fii lii mooy li nga xam ne moom lañ ci jotoon a for euh, mu tuuti mu bëri ak lu lu ci munti wéccee it ñun tamit ñu koy ñu koy jégalu waaye lii lañ ci amoon luñ ci bugg a sànni. waaw waaw léegi nag ay la Diop mu ne ma laal ci seeni jali parce que seeni jali mooy maamam waaye man tam am naa lu ma ci mun a wax waaye su ma yaay mu ngi nii toog mun naa am dina ma ci gën a am xam-xam waaye tamit mun naa koy wanne su ma maam njugaari moo jógee ko penku bi muy ñëw benn jaaru la def ci noppam bi fii nekkoon koo xam ne ku amoon tegtal la ku yàlla mayoo ba mu ñëwee toog jaane kundaa gaa yi jaane kundaa yi dalal ko mu am fa na mu jur fa seeni jali seeni jali moomu moom tamit meen ma ak deret ja ba mu jëlee ci baayam moom it mu amoon xam-xam amoon tegtal waaye wax nañ ñu ne kawul si la mi nga xam ne moom mooy waliw bi nga xam ne moo toogoon jaane ndaa mus nay wax waa jaane kundaa ne dina am benn kilifa boo xam ne dina jógee penku war a war a dem xarfu ci dëkk bu ñuy wax e, ah, esew waaye dina jaar fii su fekkee ne jaar na fii te yéen waa Jaane Kunda ngeen téye ko moom mooy lampi Jaane Kunda bi nga xamee ne wax na loolu yàlla def moom mu wàcc liggéey jamono di dox ba maam ñoom alaaji Ba Xalilu moom mu jógee koo penku ñëw ak ay taalubeem mu eh, jaar Jaane Kunda ba mu fa jaaree toog ak taalubeem ci benn ron ron garab waa jaane kundaay di ko fa romba ko dinañ ko nuyu naam waaye ñoom fàtte woon nañ tegtal ba waaye suma ma maam seeni ba mu ko ci àll ba ñëw fekk ko fa mu toog mu ñëw nuyu ko mu nuyu wante moom mu laaj ko mu ne ko ah, man de dama jógee penku waaye maa ngi bugg dem ci dëkk bu ñuy wax yesew bi nga xamee ne lool xew na moom ci boppam ci la dem ca biir jaane kunda oo mag ñi ne leen jobaate kunda ak daabo kunda ne gan bi si kawur si doon wa agsi na boo leen ko téyee moom la boo leen ko téyewut moom la ci diggante boobu nag diggante daabo kunda ak jobaate kunda foofu la njaatige yaa bi commencé par moom mu ñëw dal jobaate kunda moo waral tey Jobaate Kunda ñoom ñooy njaatige waa Kabakunda loolu moo tax ba suma maam seeni gën a jaxasoo ak waa Kabakunda gën a jaxasoo ak waa Jaane Kunda jaxasoo boobu noonu nag dem na ba ci doomam yi ba ci sëtam yi mooy alaaji seeni mbay mi nga xam ne moom lañ tuddee maamam tey moo dalal gan yi tey waaw ñi nga xam ne nag ñoo fi nekk ay kilifa jigéen ñaa fi góor ñaa fi li ma fi wax Ah, ah, maa ngi jégalu su fekkee ne njuumte am na waaye tamit comme dañu laajoon rek luñ ci mën a sànni ci nii ñu leen di gërëm di leen sant ci leeral yooyu nga xam ne moom nga yow waxal ci kawul ah, léegi nag ñu ubbi programme bi eh, tey liñ fas yéene waxtaane moo di bennoo muy lu ama am solo eh, ma jox alaaji sëriñ fay nag mu ubbi waxtaan bi jërëjëf ayda <coughs> eh, ñu ngi laa nuyu Eh, du nuyu itam say bokk yi nga fi fekk ndax suñ mbokk la ñu ndax ñun ñëpp benn la ñu ñu ni neen la di nuyu suñ doomi ndeyaaj Babacar mi nga xam ne ñu ànd moom ci programme bi di nuyu it nag eh, ñi nga xam ne ñoo di suñu njaatige fii ci Kawur eh, jiital ci alxaaji seeni mbay ak soxnaam Fatou Sagnang Fatou nag foog naa ne sax dañ bëggoon a suppali tur Eh, jox ko beneen santa di nuyu itam suñu xarit bi nga xam ne moo di alkaali bi di Moustapha Mbay Moustapha njaay eh, di ci jaar di ci nuyu itam ki nga xam ne moo di seen kansulo di nuyu alkaali eh, di nuyu kilifay imaam alkaali dëkk bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di uyu Amat Mbay muy chairman Mamat Mbay chairman bu Iri Council ndax bi ñëwee ba tey ñoom tooguñ ñoo ñooñu dimbale ndax lii fi toog nii ñun xamuñ leen mënuñu leen a dajale ci ñoom rek lañu ñu mun a jaar ba lu mel nii am kon yéen itam ñu ngi leen di gërëm ndax woote ñu la lu neex la kon ñu ngi leen di gërëm di jéggalu ci li nga xam ne moom ngeen bàyyi seeni soxla ñëw fekkee leen ñu ci programme bi eh, ñu ni neen la nag lenn rek moo tax mu jóg Eh, soo gisee ñu bàyyeekoo Banjul depuis àjjuma bërëb bu nekk dugg nañ fa bi agsi fii ci Kawur mooy rekk xam-xam bu jëriñ wax ju jëriñ ak yëngatu boo xam ne bii dina jëriñ askan wi yëpp te yàlla def ñu xalaat ne fii benn la ci béréb yi nga xam ne loolu nga xam ne moom lañu ñu bu ñu ñëwee fii ci Kawur dinañu ko fi fekk ba tax na bi ñu agsee li nga xam ne moom lañ bugg a waxtaanee. muy loo xam ne yéen waa Kawur yéen ko tànn li tax ngeen tànn ko mooy ci ngeen di dunda mooy bennoo ndax wax nañu fi kundaa kundaa yoo xam ne dëkk nañu fi ba yeneen kundaa fekk leen ci ba dëkk bi mag ba toll fii kenn mësuta jóge bërëb walla ay soldaar ñoo ne ñu ngi teqale diggante kundaa ak kundaa walla ñu dégg ne diggante kundaa ak kundaa am na fetelante gu am seen diggante ngeen dunda ci ak bennoo ba yàlla def ngeen jaboot ba seen jaboot gi jaxasoo bennoo googu ngeen am nag ba agsi fii ngeen agsi tey ci jàmm ak dal bennoo boobu lañ bëgg a séddoo ak yéen ba foo xam ne kundaang fa dendoog beneen kundaa ñu war a jaarale bennoo googu ci seen diggante ba jàmm mun a am ñi nga xam ne itam ñoo dëkka mun a jaarale bennoo googu ci seen diggante ba jàmm am ndax benno du mun a am ndare rek kenn ku ci nekk lim bugal boppam mu bugal ko moromam lim yéene boppam mu yéene ko moromam li moo dawal boppam mu dawal ko boromam moromam te it bennoo du mun a am bu xeebaate amee ci biir ñi nga xam ne ñoo bokk wala ñi nga xam ne ñoo war a ànda bennoo it du mun a am ci yërmande amul ci diggante bi ndax ay nit bu ñu àndee foog ñu am luñ uppalante mo xam xam-xam la mo xam xaalis la xam la fokk rek mu am lohamne li, am nañ ci lu wuute ci wàlli amin ndax yàlla séddaale noonu waaye ba gisee doomu aadama yi mun dëkk ci rek mun am ci seen biir kon beno boobu nga xam am ci diggante kunda kunda yi nga xam ne moom lañ tudda fii ci biir kawur bugga nañ kilifa yi nga xam dunda nañ ci loolu wala seeni kilifa dunda ci ñu baaxee ñu ñu laawee ñu biir ba won ñu mag ñu ñu naka lañu daan dundee li tax loolu mooy eh, kilifa yi def nañ seen wàll jàllale ko ci yéen kilifa yii yéen it eh, baax na li ngeen xam ne moom ngeen xam ci loolu di ci dunda mu indi jàmm ñu jàllale ko ci njaboot gi nga xam ne ëllëg ñoo leen di war a wutu ndax li gën a neex ci kilifa mooy mu ba bawoo fi gannaawam sedda te gannaaw gu sedda du mun a am ndara rek eh, bennoo am te nag li olof yi di wax ne mbooloo mooy doole ay doomu aadama suñu àndee nekk benn rek lu ñu songa rek man ko waaye nag bu xaajale ko amee rek lu leen songa it man leen ndax eh, dégg naa ñuy wax ne am na kilifa goo xam ne bi ma amee doomam lim wax mooy dafa teg ay bant kenn ku nekk mu jox la benn ne la damal xale bu nekk damal li nga xam ne moom lañ ko joxoon ci banta mu jëlaat yeneen banta yu toll noonu boole ko takk ko ki nekk mu jox la ko ne ko ne la damal kenn ci ñoo mënut a dama say woowu mu ne nag lii soo gisee ma def ko mooy li ma wunda mooy bu ngeen boolooyee bu ngeen nekkee benn kenn du mun ci yéen dara waaye gis ngeen kenn ku nekk damm na banta bi ma ko joxoon. loolu mooy bu ngeen teqale ko lu waay jéem ci yéen ci lu bon dina leen mun te nag loolu baax na ñu waxtaan ci ak xale yi bu baax a baax ndax léegi jamono dox na ba nga xam ne kenn ku ci nekk yaakaar na ne mën naa demal boppam te kenn mënut demal sa bopp ndax di nga toll foo xam ne foog nga gestu nit ñi soxla leen di nga toll foo xam ne boo wootewul sax foog nit ñi ñëw ndax xam nañ ne soxla nga leen te li nga soxla mënoo ko defal sa bopp foog nit ñi defal la ko. kon bennoo boobu e, am na solo pour ñu waxtaan ci am na solo pour ñu dunda ci am na solo pour ñu dundal ci itam suñ njaboot gi nga xam ne gi moom lañ am ci suñu biir te it kawur e, ni ko borom xam-xam yi waxee fii cosaan bi ku ko dégg lu taaru la lu rafet la te it nag ak benno moo tax sëriñ boobu feeñoon ngeen mun a am njëriñam taataan ko teg ko fii ndax bu bennoo amatoon ci diggante boobu doo gis dara loo xam ne lu baax la nga yéene ko sa mbokk wala nga